te ñoo gan nga gan gu rafet ci ne lu mën a amit yàlla na si jàmm bu njëkk mujj ci rek ndax bari na ku koy wax koo xam ne buy la muy doon tàgg daw lay def waaj na ba jekk moo tax mag ñi daan léebu ne koo xam ne ab gisal neexul bu la nee kaay ñu sànnente bañal ndax mi ngi taxaw ci aw doj wala mu yor moo tax kuy wax na wax jàmm tey gaat nga lu baax amut lenn luy xew ci adduna loo xam ne du jàll su boobaa nag yàlla na yàlla boole xel yépp te ñooy gàtt nga lu baax rek ne lu fi musta am lu lu ñuy ñett lente ñu ko gënoon a métti rek moo daa am waaye ñi daan gàtt nga gàtt ku baax naan yàlla na jàll ci jàmm yàlla mën na leen ci musal lu bari waaye réew mi dana tàkk te yow yoonu këyit woo xam ne bii saa bu la neexee dem bu la neexee dikk loolu kenn warul la caa diglu te bokk yi dañuy seetlu woote yu baree bare buñ ko wootee ña ko woote néew na muy jeex fekk leen fa dañ ciy def yeewute gu mat sëkk ñoom ñooy ne ca kanam waaye su yëf yi tàmbalee tàng dañuy daw wutali takk der yi su ko defee takk der yi jàpp leen dugal leen ci oto leen ñu mucc ci yëf ña fay des des fa néew na loolu nga dégg ñu ne ñi jiite woon yëf yi ñu ngi yóbbu di seeti ña nga am ay gaañu gaañu wala ña ngay jaare ñu ne ca faam kon jàmm ni ñuy gaan te bokk yi réew muy tàkk yàlla nañ ci yàlla musal dañuy jàpp ne ña koy wax musuñu ko fekke dañ ko mus a fekk ku ko mas a fekke jàmm rek ngay gàtt nga jërut ñuy dugg ci ay leeral waaye mën ngaa jëm dëkk boo xam ne bii fukki kilomètre dong la ak fii nga nekk nga def ci yoon wi ñaari waxtu ak dara ndax foo dox ñu la taxawal yoon wi nii mu jube woon du ñu jube dañuy teg ay taxas loolu loolu lañ xam ñun kaw gi ay taxas lañ xam dañuy tax ay taxas ci wet gi boo ko rombee wëral geneen taxas mel ni mel ni jaan ciy dox saa su ne ñu ne wàcc leen ñu xool daamar ji ngeen dugg ba xam yéen ñi yor ngeen dara wala dara nga ci boole ko nit li mu ko kenn boutique yu mag yépp des cay teg loxo courant bi du saa bu la neexee taal mu tàkk kon boog nañuy ñaan tey gàtt nga ci boole ko bu génn mënta nag boo génnee doo xam ba xam da nga dellu si waaw wala déet yàlla nañ ci ngir am ay xibaar yu leer te wóor ak lépp lu xew ci wàllum actualité nationale et internationale abonnez gaaw ci cette chaîne bi di ASG Production